publicité bëri na ku jug na garabu ngóor a ngay jaay xamuñ bu baax xamuñ buy lore xamuñ bu gën benn garab rekk ngay naan def lu ëpp junne puus mooy poudre magique bi la tudd doy waar góor gu bëgg a def lu doy waar da nga koy jënd poudre la booy naan boo seeree mu génnee ko raxasal la sa deret may la kàttan ni góor a nga mel ni fas ci sa kaw soxna te amul benn effet secondaire Zydorance lay àndal vitamine C mu def lu doy waar ci sa ngir jënd bu baax bi amul pirate wooteel ci ñetti numéro yi 77 12 12 wala 77 285 38 38 wala 77 372 96 96. góor gu bëgg a moom kër gi def lu doy ñëwal jënd jërëjëf mbokk yi amati mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi koy defee ak yéen rek saa su ne di leen dalalal ay ndaanaan waaye tey ma dalal ndaanaan boo xamante ni Sénégal kenn dootu ko laajte wala ñu koy présenté muy sama maman sama xarit ndey Sine. tey nag ma toog ak moom fii nga xamante nag moo di Sénégal Buzz 221 laataa ma gën a wéyal suñu waxtaan euh, dama koy bàyyi rek mu nëg ñi nga xamante moo di mbokk internet Sénégal Buzz ma profité aussi rek di ko ndokkale si seen doom yi ngeen di may maa ngi lay nuyu bu baax di kontaanee. di la nuyu di nuyu seen waa site bi yëpp. Mhm. di nuyu aussi internautes yi vraiment yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. Mhm. ñu bàyyi ñu wëyal li nga xamante ne moo di suñu waxtaan comme ni ma ko waxee rek tey mu doon jour bi spécial ngeen di maye seen doom ku xam fàddaam xam seen diggante yéen ak moom ni ngeen mel sénégalais yëpp lu ko tey ba yëg-yëg nga am si maye bi ngeen di maye seen doom. waaw mbégte vraiment parce que lii lañ dafa nekk suñu doom nekk suñ doom bu baax suñu doom bu yaru mais aussi doom bu ñu bëgg vraiment moom suñu xarit la avant ñu ko xi fàddaam sax vraiment on peut dire que jaari ñun ay xaritam lañu euh, kon su fekkente ne dañ dem tey ba euh, fàddaam di may doomam war nañ ci wax mun teew parce que fàddaam suñu sœur la te ñun dañu yàgg dañu ànd ànd bu rafet ànd bu yàgg. Mm-hmm. njaboot bi yëpp nekk benn ñun ñu nekk benn. Mm-hmm. donc wax na bu dee mayee doomam ñu ñëw teew. Mm-hmm. parce que ñun sañuñu sax bañ a teew te buñ teew woon sax daf ñuy comprendre. tellement que dañu ànd ànd bu yàgg ànd ànd bu rafet. xamante nañ suñu biir yéenante nañ jàmm. sama sœur la sama xarit la vraiment te nit ku baax la aussi. ku baax la aussi euh, ngay maye sa doom tey mu sëyi ku xam Sénégal tey xam jamono ji euh, ni nga xamante ne xale yi moom la ñuy sëyee à chaque fois ñu ngi gis ni nga xamante ne noonu lay demee tey bu doon ay kaddu yooy yëkkati yabee ko sa doom wala ay kàddu ñaax yoo xamante ne moom nga koy gungewee wala nga koy gungee képp koo xamante ne rek euh, jigéen nga nekk ci néegu sëy yan kaddu lay doon maman. waaw mais taaru jigéen taaru jigéen mhm. sëy jigéen bu nekk bu sañoon mhm. bu tollee ci sëy nekk ci biir néegu sëyam di sëy mhm. euh, jaari nag sëyam je pense que amuñu sax lu bari luñ koy luñ koy yedd parce que xam nañ ne xale bu baax la yar nañ ko niñ ko war a yare lu jigéen wax a mën pour sëy mën na ko macha allah parce que ñun ñoo ko yar xam nañ ko bu baax xam nañ ci koom donc vraiment pour moom mu dem toog sëy du ñu jaaxal. mais comme ni ñuy wax rek sëyu xale moom. il faut ñëpp di ciy jàpp. du taxee tamit buñ ci waree jàpp ñun ñëpp dañ ciy jàpp. parce que suñu doom la bu ñu sañoon vraiment mu toog néegu sëyam. mu am fa bànneex mu am fa mbégte mu mu am un mariage heureux. am ay doom yu barkeel. nekk jàmm ci biir kër néegu sëyam daal vraiment. Euh, nekkaayu jigéen ci biir néegu sëy naka la naka la war a mel. jigéen ci biir néegu sëyam nan la war a comporté woo ak nan la war a dundee. mais comme li ma wax taaru jigéen sëy euh, su ma nekkee di wax euh, jigéen nan la war a mën a sëyee moi je dirais je dis toujours que dafa war a euh, muñ. Mhm. première chose vraiment bu may bu may wax ci néegu sëy. Mhm. mooy muñ. Mhm, muñ. waaw nga compréhensive nga déggal sa jëkkër nga xam sa jëkkër lan la bëgg nga di ko def nekk ci sëy bu xam nga avant tout dañuy wax sëy bu nekkee ci ci ci dëgg sëy boobu dafay neex sëy bu lalu ci dëgg dafay neex sëy boo xamante ni aussi mbëggeel moo lal mhm. sëy boobu dafay neex mhm. mais aussi mu am communication am compréhension aussi ci biir sëy bi mhm. Mhm. loolu yëpp day faciliter sëy daal maanaam mhm. muy lu am solo loo xamante ne jàpp naa ne bu ko jigéen ñi di bàyyi xel ku ci ne dina yàgg ci sa néegu sëy mais maman euh, sénégalais aussi namm nañ la loolu tey nag ñu am occasion jàkkaarloo ak yow euh, fan si ak soppe lan nga leen di wax ba lan laa di wax ah. di leen wax que man je suis je sais qu'il y en a qui m'aiment beaucoup. Moi, je n'ai pas beaucoup de <laughs> fans, mais pour ceux qui m'aiment vraiment, que moi aussi, uh-huh. je les aime. Mm -hmm. aw ah, ma ay fans fans yu bare bare. yow Sénégal dañu laa bëgg le peu de fans que j'ai uh-huh. vraiment il m'encourage mm-hmm. et puis euh, il m'aime bien. Mm-hmm. te man tamit bëgg naa leen trop. ñi ma sopp ñëpp bëgg naa leen sopp naa leen. Mm-hmm. mu bëri sénégalais yoo xamante ne bu ñu la gisee seen xol day sedd euh, ci rôle yi nga xamante ne yaa ngi koy joué euh, ci communication yi nga xamante ne yaa ngi koy def à chaque fois mu leen di bégal di leen neex tey yow mi nga xamante ne yaa nekk ci kaw seen bi tey loolu nu mu lay def ndey. waaw mais loolu mbégte la parce mm. que il faut comprendre que on n'a pas choisi l'art le théâtre en fait parce qu'on mm. n'a pas autre chose à faire. Mm-hmm. c'est avant tout une passion. Mm-hmm. mais le théâtre est avant tout éducatif mmh. moi je, toujours que le côté éducatif moo gën a important sax que humour bi ñu ci am mm-hmm. di ci wax nit di ree mm-hmm. wala genre mm-hmm. moi je dis toujours nit buy seetaan théâtre na si jàng même bu dee reetaan sax gis na lu koy reetaan loo sax mais na jàng ci reetaan boobu loo xamante ne mën na ko apporter dara nañuy xool toujours leçon yi bañuy xool toujours le négatif yi mhm. mais leçon bi nga xamante ne théâtre bi mun na leen ko apporter mhm. parce que il faut comprendre que le théâtre c'est un vecteur de communication sûr mhm. bien le théâtre dafa am information am communication donc nañu xool au-delà de l'humour bi nga xamante ne moom la ci nit bi am lan la lan la ko mën a apporter mu jàng si Mhm. mu doon loo xamante ne message bu am solo la mais léegi maman ñu xool euh, yenn yi nga xamante ni sax mën nañ ko tuddee théâtre éducation amatu ci ba ñenn ci sénégalais daf leen xaw a métti euh, ci yenn rôle yu ñuy joué ci communiqué yu ñuy joué ci théâtre dem ba ci dégg ay saaga ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu naka la fan la mën a yóbbu aar wala ndax loolu amante na éducation boo xamante ne yaa ngi ko ci jàllale pour yar nit. li nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy ñaawlu ci milieu cinéma bi yenn rôle yu ñaaw yi yenn communication ci biir cinéma bi parce que dañuy dem ba dégg nit wax dagg saaga te yaa ngi wax sa biir yu wax ne euh, théâtre loo xamante ne daal dafa war a yare war a jàngal nit te léegi gisatuñ lu mel noonu. faut il di comprendre que théâtre. Mm-hmm. ki koy def c'est un avant tout. Mm-hmm. moi je dis je dis pas que dañu war nekk ci ay théâtre di di saaga. Mhm. mais c'est que le théâtre ay évolué maintenant. bien le théâtre a beaucoup évolué. Mhm. le théâtre qu'on voyait avant ak bi am léegi. Mhm. ama nekkul benn. nekkul benn. nekkul benn. parce que avant nit yi am na façon bi ñu daan bi ñuy conserver seen valeur de telle sorte que. am na yoo xam ne osé wuñ ko woon def. mais léegi. nit yi dañu osé. Mhm, mhm. moo tax lu bëri ñu koy gis. il faut pas comme ils disent voilà pourquoi diw saaga pourquoi mu def li pourquoi mu def li c'est parce que théâtre bi moo traversé beneen monde léegi. Mhm. il une évolution. je dis pas que ni dañu war di saaga non. si si comprendre naa. je comprends bien fi ngay waxee évolution bi moo laaj loolu. Mhm. et puis acteur bi da koy def. Mhm. et puis par taxul bu ko defee aussi taxul mu mel noonu. mais non pas du tout. Mhm. pas du tout c'est juste un personnage que l'acteur incarne. su ci paree pare na ko il redevient lui-même. oui mu épouser waat sa personne. donc ya a de ces yoo xamante ne tu veux bien critiquer wala wax leneen ak leneen mais. mënuñu ci dara. et puis. apparemment les gens aiment bien. oui ñu ngi koy seetaan. ñu euh, dinaa ñëw tuuti ci li nga xamante ni moo di absence bi xam naa foofu laay xaw a bàyyi rek tuuti ñu denc muy absence bi la sénégalais yi gëjoon a gis ñu dégg ci nag façon wax ju nekk maman Ndeye mi ngi nii toog Ndeye Sine ngi nii lan ngay wax sénégalais ci absence. waaw euh, tawatur na rek. Mm-hmm. xaw nekk ci ay <laughs> problème de santé. Mm-hmm. mais alhamdulilah. Mm-hmm. maa ngi mm-hmm. ñu bëri ne problème de santé boobu noonu mystique la. Hmm? lan ngay tontu ci loolu. ñu bëri ne problème de santé boobu noonu xawoon la te mystique la. waaw lan ngay répondre ci lool non pas du tout mais nit la. dama war a feebar comme tout le monde. bien sûr. feebar na. Mm-hmm. mais maa ngi tane. maa ngi maa samay traitement maa ngi faju maa ngi sant yàlla. loolu daal nga leen di wax daal comme ñi jàppoon ni mystique la wala yeneen ak yeneen loolu amul arrêtez de de dire ngi sant yàlla daal vraiment mhm. et puis xalaatuma ko loolu parce que man nit laa damay feebar comme ñëpp ñëppay feebar bien sûr mhm. man dama war a feebar mhm. comme tout le monde comme tout le monde mais ça va maa sant yàlla alhamdulilah. yàlla na sant yàgg parce que sénégalais aussi ñu ngi la doon ñaanal bu baax a baax baax suñu borom fëgg bopp bi ba nga dellu si dama ci remercier tout le monde. Mhm. je commence par ma famille. bien sûr. mes amis. Mmh. le monde entier même des gens que ñoo xamante ne man xamuma leen sax. Mhm. tout le monde a prié pour moi. Mhm. tout le monde m'a soutenu. ça a été dur mais par la grâce de Dieu et le soutien de tout le monde. maa ngi mhm. mhm. yàlla na sant yàgg ñu ngi ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom gën la kàttanal gën la uh, wéral mais aussi tey fi may tëjee naka nga gisee tey jamono ji uh, challenge ni sénégalais di dundee ndey ànd ak nit tey ngeen ànd uh, ci bànneex xëy bàyyante wala tey ànd jaayante tàqalikoo jëwante ànd ak nit mu neex ngeen waxtaan lu neex ngeen xëy bàyyante ku ci ne di yàq sa morom ci Sénégal bu doon sa gis-gis tey ci ñooñu ñu dundee tey ci réew mi yan kàddu nga ciy wax. man loolu xaw ma sax lan laa mun wax sinon que na ku nekk xam foo yem rek. xam mhm. foo yem daal parce que ànd léegi moo jafe en fait. Mhm. jafe na trop comme on dit xarit. Mhm. dafa jafe. dafa jafe. te en général ki lay waxal toujours mun na nekk sa xarit on sait jamais. mais beaucoup ne comprennent pas le sens du mot xarit. xarit. say mocce sa mocce mooy ki nga xamante ni boo amee bànneex mu bokk ak yow boo amee naqar mu bokk ak yow bu la gisulee sax dina jéem a inquiété wu wala muy wër di xool ci lan nga nekk di seet ci lan nga nekk je pense que loolu mooy xarit mooy xarit te moo jafe te moo raar mais mi ngi am ba léegi. mi ngi am ba léegi kon ñu ngi ñaan yàgg suñu borom may ñu ay xarit yoo xamante ne ay xarit yu dëgg lañ waaye aussi tey euh, dinaa tëjee ak yow mooy li nga xamante ni tey mooy booloo bi artistes Thiès yi booloo à chaque fois nit ñi dañuy faral di yëkkati ay kàddu di wax mais tey man dama gis tey loo xamante ne nit ñi di wax ak li ma gis tey dafa wutee da ngeen bokk ndey bokk baay kenn xaarul sa moroom ci dara tey booloo boobu noonu lan mooy secret waa damay wax ci comme liñ ma laaj léegi nii rek. parce que Thiès. benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Thiès y a de te ñi feeñul sax. moo ëpp ñi feeñ. wallaay dëgg la. y a vraiment talentueux yoo xam ne génn guñ sax. Thiès on a une association. qui s'appelle ARCO. qui regroupe presque tous les comédiens de la ville de Thiès. mu nekk une association boo xam ne mën naa ne près de dix ans mi ngi dox. Souleymane Dramé mooy président bi. man je la vice président depuis dix ans ñu ngi koy doxal. association bi ñu koy créé seetuñu ki troupe bi la bokk wala kii troupe bee la bokk. adhésion individuelle la. yow yaay bëgg bokk rek nga ñëw bokk. te boobu ba léegi ñu ngi ànd ñu ngi doxal. te ànd boo xama sax ànd bi waa AXCO di ànd. mais même ceux qui sont en dehors de l'AXCO yoo xam ne bokkuñu. dañuy ànd. gis nga Thiès. artistes ñëpp dañu bëggante. Mhm. dañu bëggante ah parce que ñu si bëri dañuy juddandoo yarandoo màggandoo. donc kenn mënul wax yow bañ nga sa morom. Mhm. wala yéene woo sa morom jàmm. Mhm, mhm. te du tere ku ci am sa dëgg booy wax sa morom danga koy wax. bien sûr. man tey bu ma amee dëgg bu ma war a wax Bella seen moom laa yëpp parce que. suñu nattu la suñu nattu du tëdd ci lal te déggu tëdd te ko. su amee dëgg bu ma war a wax. du ma tëdd ci lal te ko. on se dit des amuñu pour di raayante. Mhm. wala enfin on joue pas cette hypo cette on joue pas cette hypocrisie là. Mhm, mhm. ku ci nekk dëgg bi nga am pour wax sa moroom da nga wax mu jeex. mooy dëgg sax. mais suba dañuy àndaat ba ba mu neex. on s'aime bien. mais la langue elle est donc appelée à vivre ensemble se querelle. loolu adage bu yàgg la mais dafa am. d'accord d'accord nga nit am lu ko naqari toog ci internet wax ko. d'accord nga loolu. non. loolu d'accorduma pour ñu toog di waxante si ay internet moom. ñoom ñëpp xam ne man je suis pas pour. mais nag sa dépend. su fekkee da nga dem ci internet wax. ñu dem si internet tontu la. mais lu mën a ñàkk la neexuma. lu mën a ñàkk la. Mhm. parce que li ma la wax moo am. Mhm. ku ci yarandoowul ak kenn. Mhm. mag màggandoo ngeen vous avez grandi ensemble wala ngeen juddoondoo c'est vrai de que su ma amee lu ma lay wax war naa mën a tal sama oto dem ba sa kër. Mhm. ma toog ak yow ma wax ak yow. bien sûr mais je vois pas pourquoi ñu mën a def cette guerre la ci internet je vois pas. Mhm. gënalu ma. gënalu gënalu la muy message bu am solo mais temps yi nag gis naa la ci série bu bees bi nga xamante ni tey moo nekk ci Marodi ou Even Pro. Ah? Even Pro Even Pro maa ngi la fay gis nga defar retour boo xamante ni sénégalais dañ cee kontaan retour bi moom loo nar. <laughs> waa xanaa liggéey rek. parce que man li may wax euh, le terre c'est ma passion. Mm-hmm. mais c'est un métier un métier noble. Mm-hmm. te ay nit bu buñ la gisee am ci yow confiance. ba jël la pour nga liggéey ak ñoom. Mm-hmm. tu dois donner le meilleur de toi-même. bien pour sûr. leur faire plaisir. Mm -hmm. mais aussi faire plaisir aux spectateurs. Mm -hmm. qui te regardent. Mm-hmm. donc li ma mën def rek mooy donner la meilleur de moi-même. Mm-hmm. pour ñi nga xamante ne ñu ngi ma doon xaar peut-être. Uh-huh. ak ñi nga xam ne choisir nañ ma dans leur production. Uh-huh. ma liggéey. ñu xam ne daal affaire daal du yomb daal Ndeye Sine mi ngi si affaire yi taxaw daal te fas yéene wu leen may dara daa fas yéene bégal soppee ak fan si. waa timidement. Ah. <laughs> timidement bëgg naa bégal ñëpp rek ndànk-ndànk rek. waaw hmm. hmm. ah, mais kontaan naa tey ci jàkkaarloo ak yow parce que xam naa ni moom lii Sénégalais di leen ci kontaan waaye man dama leen sonal samay xarit lañ moo tax maa mën a am yu bëri ci ñoom. <laughs> yow daal comme yow fexe nga def tuuma piège ba teg yow jëlal sa yëpp nga bàyyi ba yow El parce que interview bi nag daa am lu ko waral de <laughs> ah. Eh. ah j'ai oublié de vous dire. Hmm. il me fait chanter là. ah. loolu moo tax ma def interview bi vraiment <laughs> il faut ñu régler suñu compte ma moom. <laughs> Sénégal nañ xaar lu neex loo xamante ne maa leen ko defal surprise te ci ndey si lay génnee. <laughs> mais kontaan naa bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak yow yan kàddu ngay tàggoo mbokk internet yi nga xamante ne seetal. Mm-hmm. waaw maa ngi gërëm ñëpp. Mm-hmm. di sant ñëpp. di gërëm Fadda mi nga xamante ni tey moo mm-hmm. tax ma génn vraiment. pour faire plaisir à Diary sa fille. di ko souhaiter un di ñaanal faddaam jàmm ak xewal rek mu gis bànneex rek ci sëyu doomam mhm. parce que suñu doom la mhm. di remercier votre site vraiment Sénégal Buzz oui parce que vous êtes en de faire un très travail vraiment merci je vous encourage et vous dis merci mhm. di wax merci internautes yi ñuy suivre yëpp vraiment parfois damay toog sama xol dafay tooy parce que dama naa ah man ndekk ci am na ñu ma bëgg <laughs> parce que. ndeysaan j'ai vu quand on a annoncé ma maladie. Mhm. y a beaucoup qui ont prié pour moi. Mhm. y a beaucoup qui m'ont aussi. Mhm. yoo xam ne sax xaw ma leen. vraiment ñëpp dañ ma taxaw. mënuma mënuma sax lim mais xam naa ni ndekete je suis dans le cœur de certaines personnes. surtout sama nit yi may liggéeyal fii. Mhm. Bella surtout. surtout Bella. nit ku baax. Mhm. moom mënuma wax ci moom lu baax yi parce que elle a failli devenir mhm. ndax dafa nekk nit koo xam ni bëggul dara lu ma metti bëggul bilaa bëggul lu ma naqari bëggul lu ma metti dafa daw ba sonn donc il voulait coûte que coûte que que je me remette vite. Mhm. sama la. Mhm. je mhm. un très bon cœur. elle le cœur sur la main. man dama ko bëgg te moom à chaque fois. Elle ne rate pas l'occasion de me le de Excusez-moi. Et tous mes amis artistes, vraiment. Mhm. Il Fatou, Moussa Sek, Asdiouf, mhm. waa mhm. en commençant par le président Jules Dramé ah, Moussa Seck ki xam ne bu ñëwee sax yàggul Omar Seck. depuis l'Italie Ndeye Mbaye depuis Espagne. beaucoup su ma limee damay juum. mes amis Badou Ndiaye mënuma sama xarit la sama hmm. ami d'enfance nekk Italie ma famille d'abord avant oui. tout je devais même commencer par ma famille hmm. ma fille oui. son mari Oumy mm -hmm. Pape ma mère mes amis il y a certains mënuma leen sax lim hmm. mais je citerai quand même quelqu'un le directeur de l'ANAMO Maodo Malick Mbaye kooku nit la koo xam ni aw ma franchement il est toujours à mes côtés toujours à mes côtés Maodo Malick Mbaye kooku c'est comme si dafay toog xaar rek ñu ne ko ça pas mu daw ñëw il veut toujours me voir en bon état c'est quelqu'un qui me soutient à tout moment. Mhm. xaarul dara xaarul dara ci man. Mhm. dama koy wax ba amoon trois personnes yu nekk yu mel ni moom. Mhm. à kon kenn du jooy dara. ndeysaan il est bien. il est trop bien. c'est mon leader en plus. dama koy remercier bu baax di remercier Armand Diouf mon ami mon frère. tout le monde jatara man je peux dire que man quand je suis tombée malade kenn xaaru. Mhm. kenn xaaru. Mhm. c'est comme si kenn bëggul dara jot ma ñëpp daw. Mhm. j'ai un ami je veux pas citer son je dirais seulement monsieur Ndiaye. yàlla na yéex. parce que taxaw na ma taxaw boo xam ne man man sincèrement man aw ma fayu nit yi. Mhm. aw ma sama famille. Mhm. tout le monde était là ame mes à mes côtés. Mhm. jooyu franchement. mais sant yàlla nag bu baax. je remercie vraiment tout le monde. macha allah. kontaan nañu euh, bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak. Euh, moom les internautes moom. Mm-hmm. quand je vois leur message mais lii je dis mais man góorgóorlu rek moo ma wax. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah internet yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen euh, gërëm ci ni ngeen xamante ne noonu ngeen di taxawoo suñu maman bi ndax it ni ma ko waxee sànq nit la koo xamante ne sénégalais yi ko safoo nit la koo xamante ne sénégalais ñoo ko bëgg ndax it bi nga xamante ne yàgg na leen ko bëggal ci message yu am solo yi nga xamante ne moom lay véhiculer di ci jàngale moo tax it saa su ne rek bu ko dara xit dalee rek day mel ni Sénégal yëpp la dal waaye di santaat bu baax ki nga xamante ne remercier nga ko muy suñu sista Bella Sène Sénégal yëpp gis nañ ni nga xamante ni noonu la taxawee nit ku baax la nit la koo xamante ni nit ñee ko gënal boppam man xam naa ci dara ndax dama kaa sonal waaye dañu koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm bu baax dama dama excuse-moi je te coupe pas mm-hmm, mm-hmm. dama feebar naa tëdd hôpital mm-hmm. tu sama xarit la dañuy waxtaan sincèrement j'ai loué sa générosité Alice et pourtant man ak moom kiiwuñu sax mais xam li ñuy wax da bëgg nit ki. Mhm. nit bi bëgg la. Mhm. te du am occasion pour prouver la ko. c'est vrai. sincèrement enveloppe la yëkkati beaucoup d'argent. ndeysaan. jox ko Bella. la mhm. ko Bella vite très vite. Tata bu mu tëdd. xam nga yooyu c'est des gestes vraiment. touchant. touchant. oui qui profondément d'ailleurs. Mamita Mamita. Mamita ta fille. Mamita. oui. théâtre moo ñu boole. mais elle presque comme une fille. pour moi mu ko bëgg dafa ma bëgg. Mhm. day dawee Dakar ba Thiès et son mari Badou Ndiaye le grand réalisateur. oui il n'hésite pas. Mhm. Mhm. Serigne Ngagne. Serigne Ngagne je peux pas te kooku day ñëw gaara otom ma wàccal. ndeysaan dem yóbbu ma faji ma. amul fu ma taxawul mm-hmm. saa neex mm-hmm. su ma limee nee naa la damay juum dangay juum saa neex mënuma sax wax il il il m'appelle Leysine da feebar. Cheikhou ku baax. ndeysaan je maam Cheikhou lan la. Mm-hmm. dégg naa danga feebar qu'est-ce que tu as pourquoi tu ne loolu sa yëg nit bi la bokk. ndeysaan son argent dawal oto. damay dem hôpital principal mu taxaw fay lépp kon man dama dama recevoir ay soin yoo xamante ni yàlla mën naa rus ñooñu ñëpp sax nga mhm. wéral ma dëgg la ils sont tous à mes petits soins tous mhm. parce que tout le monde même mhm. man tout le monde même parce que j'aime tout le monde wallaay bëgguñu lu ma naqari bëgguñu dara jot ma su ma limee damay juum soo limee da ngay l'occasion une prochaine fois vraiment. pour mhm. waxtaanaat. Mhm. c' est pas l' <laughs> essentiel. non dinañ amaat jotaay bu gën a yaatu. parce que c'était juste une occasion pour remercier tout vrai c' vrai c' vrai xam naa ni moom sénégalais dinañ kontaan bu baax a baax a baax tey ñu gis la. Mhm. nga toog waxtaanee nii ak euh, ñoom muy kàddu yu am solo yoo xamante ne nag ku ci ne di nga ci jàng jëruñu ci waaye aussi di la gën a ñaanalaat rek bu baax a baax a baax suñu borom yokk la tan ndax yow sama xarit nga sama maman sama waay nga nit ku baax nga. <laughs>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 96 96. àndala buri mooy saafara sa yaram.